Okay, alhamdulillah. incha allah ñu ngi war a jël aya soixante bi ci suratu nisa alam tara ila allazina yazumuun alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين بقي الحمد لله نجني تاي ñew ci suñu daje bi nga xam ne nii dañ koy am ak téere borom bi jalla wa ala ci suñu ñetteelu daje ci weeru koor wu màgg wi mi ngi noonu di dëppoog le 25 mars ci li nga xam ne mooy 2023 di ñaan suñu borom jalla waala la nga xam ne moo ko déggee ci làmmiñu yenentam sallallahu alayhi wa sallam ca ñay daje ci ab néegam di jàng ab téeréem ñi ngi ñaan yàlla na yàlla jagleel ñu ko yàlla na ko jagleel it képp koo xam ne yaa ngi koy nar a déglu foo mën a nekk ca fayal ñu ña nga xam ne ñoo dox suñu diggante ak ñoom ci groupe yi jàkka jeeg sud ya ca aju ak suñu télévision bi di Islam TV di fàttali rek ni daje bi ñaar lay ëmb da ca jiitu mooy tilawa bi nga xam ne nii jurit bi dafa war a bàyyi xel yor ab téeréem bu baax di déglu Cheikh Ousmane ngiree ëllëgi ci si biir muy mën a jàng téere borom bi comme naka suñu borom yàlla santaane suñu borom yonente yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na ñay jàng téere bu yàlla bi na ko yàlla santaane ulaika ma safaratil barara yàlla di leen di yéegi ci gratu malaaka yi doonte ne ka nga xam ne mokkalagul ma ngay jàng waaye di gagaka jàll kooku moom lañ ko jox ñaari pay payuk jàng téere bi yàlla bi ak effort ba bii def effort boobu nag nit wuru caa tay yi ba ba muy yëg ne mokkal na njàngi lu nu téere borom bi jalla waala ñaareel mbir bi mooy jéem a déglu bu baax la nga xam ne la ñuy wax ndax teew cib jataay ak déglu settantal bokkul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su ma saan wootee gaa yi dañuy ñëw naafiq yi ñëw suñ ñëwee seen xale nga ca leneen da ngay def leneen suñ génnee nag qaalu maza qaala anifa waaw moom lu mu doon wax sax gis ngeen loolu it seytaane da cay jaar doomu aadama kon heure boo tegee toogee ci jataay ñuy wax qaala la qaala rasulullah wala nga teg sa audio di ko déglu wala sa vidéo di ko seetaan nga la waaye bàyyil xel la borom bi subhanahu wa taala di wax naan man alqa samaa wa huwa shahid mooy yaa ngi boole sam nopp di dégg waaye sa xolit di settantal la ngay dégg lu mu doon gannaaw ba yit yéene ba ngay war a am mooy fexe lii may déglu lan laa ci jëfeegul woon ma jóg jëfe ko lan la ma fekkoon ma sax ca te mooy allazina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana ñay déglu kaddagoo gannaaw ba wëlbati ko topp la ca gën yooyu yëpp mbokk ñetti mbir la yu ñu war a bàyyi xel yal na yàlla dajaleel ñu ko ca defal ñu afiya fi dunya wal axira kon incha allah ñu bàyyi ak Cheikh Ousmane. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل نزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سني بروم جل وعلا مني ألم ترى أم ndax yow gisoo ila allazina yaz'umun jëm ci ñi nga xam ne ñoom day nee nañ jortu nañu annahum amanu bima unzila ilayk ne ñoom day gëm nañu la nga xam ne dañ ko wàcce ci yow wa ma unzila min qablik ak lañu wàcce woon ca la la jiitu yuriduna an yataxaakamu ila taxut gannaaw ba ñu ngay bëgg di atte woo ca la nga xam ne nii mooy taxut taxut mooy bépp tëralin bu safaanoog na yàlla tërali loolu taxut la mooy lu jéggi dayo ñoo mooy taxut wa qad umiru an yakfuru bi te ñoom day dañ leen digaloon ñu weddi lépp luy taxut wa yuridu shaytaanu an yudillahum dalalan ba'ida cheytaan it ma nga doon bëgg ci sànq leen cankute goo xam ni gu sori lay doon réeral gu sori wa ida qiila lahum taalaw taalaw ila ma anzala allah fuñ leen waxe ey yéen kay leen ñu jëm ca la yàlla wàcce wa ila rasul ñu jëmit ca yonente bu yàlla ba mu atte ra'ayta almunafiqina yasudduuna anka sududa da ngay gis naafiqiya ña ngay fekk ci yow ay di la dummooyu ak la nga xam ne mooy ak dummooyu fa kayfa ida asabatuhum musiba ma moom naka lay demee bis bu musiba dalee seen kaw bima qaddamat aydihim te la nga xam ne jiitaloon na ko seeni loxo summa jaa'uuka yahlifuuna billah gannaaw ba nag ñu dikkal la di waat ci yàlla in aradna illa ihsaanan wa tafi wa tawfiqa ñun de waay bëgguñu lu dul ak rafetal ak dëppale la nga xam ne nii mooy jaami yàlla yi ci jàmm ulaika allazina ya'lamu allahu ma fi qulubihim ñooñu day yàlla xam na la nekk seen dënn ya fa a'rid anhum dummuyu leen wa'izuhum qupp leen wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha wax leen ci seen bakkan ya kaddu goo xam ne guy jotale lay doon mi ngi noonu bokk julit gis nañu ne diinil islam suñu borom def ñoo sant ne udxulu fi silmi kaafa dañoo war a dugg jébbalul yàlla ci lépp amma nag mu bokk loo xam ni ma nga commencé woon ca diine yu jëkk ya mooy lii ñuy tudde ibadat loolu yomboon na ci ñoom mooy julli woor ak makka naam amma buñ duggee ci baabul muamalat dugg ca jëfi jëf ya ak baabul hudud ca atte ya foofee nag mooy am jafe-jafe ci la ëpp ci nit ñi looloo tax ba suñuy borom subhanahu wa taala mu ne xoolal ñi nga xam ne dañoo joort ay kon loolu amul jortu ne ñeene gëm nañu yàlla gëm nañu li ñu wàcce ci yow mi alquran gëm nañ téere yu jëkk ya ñoom de loolu la ñuy wax ba pare bu attewoo jotee ñu dem attewoo leneen lu dul la yàlla ak yonent bi wax mbokk lii di mbir moo xam ni suñu borom yàlla nee na lu yéeme la te ñoom dañ leen a santoon ni lépp luy taaxuut lépp lu jéggi atte yàlla ak atte yonent yàlla julit da ko war a weddi wa man yakfur bi taaxuute wa yu'min billah képp koo xam ni daa weddi taaxuut gëm yàlla suñu borom mu ne nag cheytaane dafa bëgg ci réeral leen ak réeral ca kon cheytaane bu la galgalee ci julli nga tëkoo koor nga tëkoo aj màkka nga tëkoo mu daal di lay xaar nag te attekaay ba ba xam yo boo ñëwee nooy réagir naafiq yooyu buñ leen waxee kaay leen waaye ñu dem attewoo ca la yàlla wàcce ak naka yonent bi atte naafiq yaa non non non non non non non loolu moom ñun daal ay jurit lañu mais affaire atte moom duguluñ ci yàlla ak yonent yàlla moo gaay di li moo xew suñu réew ah kay moo xew suñu réew inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kala waaye na mbokk yi nañ bàyyi xel ne ñaar fukki at ci gannaaw am na collectif des associations islamiques yu nekk ci Sénégal sañ-sañ xam nga ci dara am na benn livre bu ñu bindoon livre boobee bañ koy bind que jiite woon mbir ma mooy maître Mbay Ñang rahimahullah maître laa wax de di gaayu kooku droit la jàng avocat la jàng waaye ba mu demee ba xam ne ndekete yoota la ko tubaab bi jàngaloon safaanoona ak li ko boromam sant te xam ne ni du mujj ca tubaab ba ca boromam lay mujj rahimahullah faatu na maître mbay ñang waxuma mbay ñang bi mujj fii maître mbay ñang la woon moo demoon ba ne xam ne ne ne nit ñuy doxalee politique ak diini l'islam loolee jafe nañu boole ko bis nekk tey bàyyi na leneen lu dul lu dul xaalallah xaala rasulullah moo jiite woon parti P PL mi ngi noonu PLP PLP non moo jiite woon collectif ba bañ ci dajee fii ci institut islamique tout lépp luy famille diine ci Sénégal comme ñoom niñ koy waxe ñoom yónnee woon na fa ndaw kilifa yu bari tey ci ay sëriñ su bari fekke woon nañ loolu ñoom ñëpp ñu bari ci ñoom ñu ngi ci biir suuf tey ñu daal di signé bind benn livre ne dañuy ñaan état Sénégal waxuñu ku sàcc ñu dagg loxoom waxuñu ko njaaloo nañ ko rey waxuñu sax ko rey nit nañ ko rey waaye nag am na mbir yuy xew ci kër yi nañ ñu dimbali atteeku ni ko suñ diine gërëmi mooy wàllu miraas nii la ko yàlla tërale wàllu sëy wàllu divorce wàllu yor xale yi wàllu nangam nii lañ ko tërale def ko ab téere proposé ko njiitu réew bañ tombeeloon jamono jooje waaye ba mu ko xoolee lu ko sànn ci ay turoiram mi ngi noonu naka wuute it naka noonu téere ba mu mbokk mi ngi fii ba tey ku bëgg bu ñëwee moon ko ko loolu kon mbokk dañuy gis ne ñoom te mënta passé loolu wala waaye yéen ndaw génération yi nar a jël réew mi bàyyi leen xel loolu au moyen bu dee mënuñoo am acteur islam yëpp loolee moom mën na am dérangé wul tubaab bi mi ngi noonu xëy na tubaab bi moom ku dagg loxo ñu jóg ku rey nit ñu jóg waaye nag ni ñuy réglé suñuy sëy ni ñuy réglé suñuy miraas ni ñuy réglé suñu mbir intérieur loolu au moins nañ ñu ko may waaye suñu borom nee na heure boo ko wootee ngi su mën a fiq yi naa fiq yi ñoom dummo yu la war na gannaaw ah loolu moom loolu moom d'accord ci mi ngi noonu a ngi dolli ñaanal suñu benn mbokk El Hadj Fadiou Gueye muy wax fii lu bari benn ci intellectuel yi muy waxtaanal mu ne ko oh mais Fadiou yéen affaire yi et loi yi ngeen di wax man daal bis bu ngeen bëggee ba tëral charia rek teel leen ma ko yëgal man ma génn bàyyi leen ak seen réew mbokk doomu jurit ndax war naa wax lii ca itamit même bu doon te ne dañuy tëral charia waa gaa yi luy charia di dañ ne ko rey nit nañ ko rey waaw yooyu mi fas yéenewul rey nit looy ragal ci loolu ki njaaloo nañ ko duma wala nañ ko rey yow fas yéene woo njaaloo looy ragal ci loolu ki sàcc nañ daggaloo xam fas yéene woo sàcc looy ragal ci loolu gis ngeen suñu borom yàlla nag ne ana naka la ñuy demee heure bu fitna dalee seen kaw ñu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naan ñun kat wax jooju nga déggoon ñu koy wax dañoo bëggoon rek ak rafetal indi it ak juboo diggante yahudi ak jullit ñi loolu rek ñoo ñoo moo ñu ci yóbbu suñu borom ne leen déedéet yàlla gën a xam la nekk seen biiru xol yow yonent bi dummu yi leen xupp leen wax ju dugg ci seen xol ca won leen gannaaw bàyyi leen gannaaw te loolu it moo ma sa nekk mbokk position nafiq dañuy jóg wax wax ju bon jëmele ci diine ji mi ngi noonu am na benn waaye bu fi mbaru woon mi ngi noonu yor turu l'islam nekkoon professeur université daal di bind ab téeréem ŋàññi l'islam ne yonent bi alayhi salatu wasalaam alxuraan ji lu ci bëri da ko recopier rek ci ay indoog yu demee noonu yaa ngi dégg bokk na lu mooy fàttali ko ci téeréem ba mu naan wala taqutuhu bi yaminika mais ku munta bind sa dajoor war ngaa bind sa càmmooñ mi ngi noonu faatu na léegi bëgg ma tudd ci turam waaye mag ñi fi nekk xam nañ ne woote nañ fële ca sapeur pompier jumaa ji rek sapeur pompier géej waay daje bu mag ngiree contre jëf ju bon jooju mu defoon et pour buñ ko defee buñ ko defee ba pare nag moo ngóor si ma leen doon wax fii barki démb naan ndax bakka la ñu war a aje am makka suy pare naan non dañu comprendre samay wax nangam nangam mbokk looloo ma sa nekk waxi nafiq suñu borom nag jàlla ne déedéet fa'rid anhum dëmmooyu leen loolu ñu feeñal seen biir làmmiñ ya la nekk seen dënn yi moo gën a garaaw gis ngeen waqul lahum fi anfusihim qawlan baligha kon mi ngi noonu Cheikh Ousmane
وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما barakallahu fikum suñu borom jalla wa ala mu ne wa ma arsalna min rasul musuma yónni ci ab yonent illa li yutaa bi iznillah lu dul ñu topp ko ci ndigalu yàlla walaw annahum iz zalamu anfusahum e way ñoom day bu doon dañoo tooñ seen bopp jaa'uuka fastaghfarullah dañ laa dikkaloon jéggulu yàlla wastaghfara lahum rasul mu jéggalul leen yonent bi yàlla ba la wajadu llaha tawwaban rahima kon day doon doon nañu fekk yàlla muy aju kuy nangu tuub aju kuy yërëm ay jaamam fala wa rabbika laa yu'minuun maa fala déedéet maa ngi wàcc sa boroom ne ñoom day duñu gëm mukk hatta yuhakkimuka fi ma shajara baynahum lu dul yow yenent bi dañ lay atteewul atteloo ca la nga xam ne day nekk ak juuyoo ci seen diggante summa la yajidu fi anfusihim haraja gannaaw bu duñu yëg ci seen bakkan ya benn xat-xat mimma qadayta ca la nga xam ne atte nga ko wa yusallimu taslima ñu jébbulu ak jébbulu ñeel atte ba nga xam ne moo ba woote yàlla ak yonentam mi ngi noonu bokk julit suñu boroom jalla waala du denc téere bi di teqalee aqi boppam ak aqi ay jaamam bokk ab yonent yàlla day ku màgg la waaye ndax màggaayam dana yegg ci ñu koy booleeg yàlla ci jaamu ko déedéet yeninti yàlla lan lañu siq ak moom mooy topp ko mu digal ñu ne lii la yàlla bëgg lii la yàlla bañ looloo tax danaan borom bi nañu day nekk bi iznillah ndax ab yeninti kat du wax lu dul lu ko yàlla waxloo suñu borom mu ne walaw taqawwala alayna ba'd al aqawil la axasna minhu bil yamin summa la qata'na minhu al watin bis bu yonent bi jógoon waxal boppam lu ma ko waxloowul doon naa ko jàpp dagg buumi xolam kenn du ko mën a atte lu ñuy wax ci yonent yi la ñuy wax ci ab sëriñ mbokk xam leen ne ab sëriñ lan lay jëriñ mooy li yu too kan mooy ab sëriñ bu lislaam nangu mooy ki jàngi waxi yàlla jàngi waxi yonent yàlla di ko jàngal ña ko xam ne jànguñu ko lii mooy sëriñ ci lislaam islam xamul sëriñ bu ñuy donnante loolu moom nit ñi ñoo ko këreel seen bopp mooy kii maamam moo doon sama maamu euh, maam mooy doon sama sëriñu maam bàyyi mooy sëriñu bàyyi kii mooy sëriñ doomam mooy nar a nekk sama sama sëriñu doom surtout mooy nar a nekk sama sëriñu sa loolu mbokk ñun ñoo ko créé waaye l'islam lan la xam ci sëriñ mooy koo xam ne nii jàng na nekk ña nga xam ne nii dafa jàngale yàlla ak yonent yàlla wax di ko jàngale mën na am bàyyam sàmm la woon mën na am bàyyam médecin la woon mën na am bàyyam ci leneen la nekkoon lii la ñuy tudde sëriñ ku mel noonu lu ñu séq ak moom ndax mooy ni ko nit ñi jàppee man que sëñ diw mooy sab sëriñ kon ba may waat barke nangam cheikh diw fu ma fakka solo yaa cheikh diw cheikh diw sama yaakaaru àdduna ak alaxira loolu it suñu mbir la ñoo ko créé mbokk ab sëriñ mun ta ñàkk suñu borom mu ne wattabi sabila man anaba ilayya fokk doomu aadama am sëriñ boo xam ne nii moo koy xamal ni lii la yàlla wax lii la yonent yàlla wax lii la yàlla bañ lii la yonent yàlla bañ mi ngi noonu loolee nag la gannaaw ba bu ngeen àndee jaamu yàlla mën na am yow yaa gën sëriñ bi ca yàlla téeméeri yoon wallahi ak bëri kuy sukkal nit di ko raamal fekk moo ko gën ca yàlla téeméeri junni yoon mi nga noonu ndax mbir bi mooy dalay jàngal rek ngeen ànd nag dem li taa ngiree ñu topp ko bi iznillah ci ndigalu yàlla mu ne nag cay ñoom bu doon tene ni dañoo tooñoon seen bopp amoon jafe-jafe ñenn ci ñoom tooñ ñi ci des gannaaw ba ñu ñëw attewoo yonenti yàlla bi ña nga xam ne dañoo tooñ jéggulu yàlla yonenti yàlla bi jéggulul leen te loolu it mbokk jurit mooy bi yonenti bi alayhi salaam di dund da ngay gis ne genn ñaan gënul woon a màgg ñëw ci yonenti bi mu jéggulul la say bakkaar te loolu day valable ba ila yumi diin ñeel mboole mi julit ñi suñu borom mu ne wastaghfir li zanbika walil mu'minina wal mu'minat ñaanal yàlla jéggal la ñaanal yàlla jéggal julit ñu góor ñu ñu jigéen ah nga dajeeg Cheikh Ousmane ah Cheikh Ousmane bu ma fàtte de ñaanal yàlla baal ma de gis ngeen loolu yàlla ne Cheikh Ousmane yàlla na yàlla baal nangam tey jii bu doon tane ne nit daa nekk ci mbooloo daa di ci soodi lu ngeen koy wax yarhamukallah lan lay lan lay tontu yaghfirullahu lii walakum mi ngi noonu ca mooy jéggalante amma nag bu yonente bi faatoo loolee mbokk ndax dañuy dem ca bàmmeelu yonente ba ngir jéggulu fa yàlla la wallah ndax dañuy dem bàmmeelu yonente bi ngir ñaan fa yàlla la wallah yéen ñi dem Makka xam ngeen képp ko dem ca bàmmeelu yonente ba tàllal ay loxo ni gaa yi wëlbati la ne la demal jublu penku ndax yonente bi alayhi salaam kenn du ko ñaan xanaa ba muy dund kay mu ñaan yàlla ñaanal la waaye faatu na jeex na moom da nga koy ñaanal moom ci boppam waaye kenn du ko ñaan kenn du sàkk ci moom dara safaanoo la kenn ci suma benn ñi ñëw ci jàkka ji Mouhamad Ndiaye nee na benn nijaayam dana ko ah Mouhamad da ngay xala rek waaye gis nga amul benn itte boo xam ne danaa ko xëy am ko ci ndakaaru gi taal sama oto daw deux cent kilomètres ba ci xabru seen diw diis ko ko lu dul balaa ñetti fan danaa fekk faju na gis ngeen bokk loolu ay mbir la yoo xam ne ñoo ko créé suñu bopp même boo doon madina dafa jege nga taal sooto dem ca xabru yonente bi alayhi salaam ngir ñaan fa sa soxla walla yaa ngi def loo xam ne yàlla digluwu ko yonente yàlla digluwu ko su ko defee kon ab xabru heure boo fa demee lenn dong la fa war a yóbbu mooy ñaanal ko fa tëdd looloo tax boo kër këree ba dugg ci jumaa yonente bi alayhi salaatu wasalaam da ngay julle ci yonente bi mooy ñaanal ko boo doxee un pas aboubacar ngay tollool nga ñaanal abubakar asalaamaaleyka ya abubakar asalaamaaleyka ya omar ñaanal leen mais pas ñaan leen kon suñu borom nee na su boobaa day daañu fekk yàlla doon attawaab mbokk suñu borom mooy attawaab attawaab ñaari mbir la mooy yatuuba allahu alayhim li yatuubu yàlla mooy déppale nit ki ak tuub looloo tax dara gonte wóore di waaye naa njaaloo rek su ma paree tuub naa carte rek su ma amee après dinaa tuub naa nekk fii ma nekk extérieur def la may def su ma ne bee tuub comme li ma benn jeune nettali benn waaye bu mu gisoon muy góorgóorlu fi dajeeg moom ca réew ma mu nekk ca la ko neex mu ne ko waa sëñ bi li nga def mooy lan mu ne ko hoo fii ne kenn mënu fee jaamu yàlla dina jëlaal ma nga aéroport su ma delloo Dakar naa ko jëlaat mbokk loolu seytaane koy def xamal ne tuub ci yàlla lay jóge du jóge ci doomu aadama yàlla lay dëppale nga tuub lan moo la xamal ne soo rayee nit ki da nga tuub loolu xamal ne boo jàlloo da nga tuub loolu xamal ne boo kàttee da nga tuub kon benn yàlla mooy dëppale ak tuub benn ñaareel bi it mooy nangu tuub ci képp koo xam ne sell na sa xol te loolu it jurit war koo lambaayoo loo mën a def ci lu bon da doon bokkaale da doon rey nit loo mën a def ci lu bon suñu borom yàlla boo tuubee tuub gu sell mu nangul la sa tuub ba pare yërëm la yërëm nga mooy lan mooy nombre de de de de bakkaar ya mu defal la ko nombre de tuyaaba mi nga noonu ba lenn ci mufassiru nii dañuy nettali ne benn góorug caameen daa dajeeg Omar ibnul Xattab da ko Omar yow yaakaar naa ma la ëpp tuyaaba de Omar da ko waaw noo ko xamee mu ne ah aaya ba may jàng suratul furqaan suñu borom nee na ñu doon bokkaale di njaaloog di rey ku ci tuub ulaika yubaddilu llahu sayiatihim hasanat ñooñu yàlla seen bàkkaar yàlla da koy wëlbati def lu baax maa ngi lay waatal li ma def ci ay njombi bu ko yàlla defee tuyaaba dinaa la ëppale ala kulli xaal mbokk gi kooku mooy suñu borom mooy attawaab doonte ne ne seytaane ma ngay taxaw fële nag takk ngembam sëñ tam di góor gi génne du ko tekki ma nga takk ngembam ah dégg li imam wax waaye bis bu tuubee yàlla baal la waaye acca kon demal ci gel yi demal ci péemi demal bis bu tuubee yàlla baal la waaye mbokk laa wallah xamal ne tuub ci yàlla lay jóge borom boobu subhanahu wa taala nag dellu si waat te ñam doon wax ci kaw mooy naafiq yi nga xam ne nangu nañoo jullee góor ak makka waaye attewoo la loolu duñ ko def borom bi nag ne maa ngi waat ci sa borom na ñooñu wootewoo gëm nañu duñu gëm lu dul dañuy attewoo ci yow lépp loo xam ne juyoo na ci yéen yàlla waaye mbokk jullit dañ bàyyi xel loolu xatta yow mi sol robb sol juge toog di atte nga la waaye julit nga gëmal ne alxuraan ak sunna la ñu war a atte woo de léegi nag mu des waa ji nga xam ne daa gëm ne alxuraan ak sunna la ñu war a atte woo ba pare muy atte woo leneen kooku dañ naan nekk na ci kufru doonu kufru mooy kéeféer la goo xam ne du kéeféer gu koy génn ci l'islam complètement waaye nag mi ngi ci mbir mu grave a grave a grave mi ngi mel ne la yonente bi alei salatu wax naan qitaaluhu kufr julit dem di xeex ak mbokk julitam kéeféer la amma nag soo weddee ne alquran non du lu ñuy attewoo loolu moom da ngaa génn ci l'islam ngeen bàyyi xel loolu bu baax yow Mouhamad Ibrahim président loo mën a doon xamal ne ah diine yàlla ji nii la tëdde gëmal daal dañ ko war a def loolu mooy le minimum minimum minimum ba nga xam ne moom nga war a lambaayoo loolee mi ngi noonu borom biir subhanahu wa taala ne mbir mi du nangoo attewoo diine kese waaye da nga cey boole it la yàlla santaane nga nangu ko ma gaa yi ndax yéen ci yéen kenn ci yéen déggul woon ke nga xam ne mooy maïs ibnu malik keroog bu mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam na ko ah yow mi yàlla yónni yàlla nattoon na ma ba ma njaaloo te mas naa sëy téeréb yàlla bi nee nañ dañ ko war a rey kon nañ ma rey mi ngi noonu nangu la yàlla santaane bañu rey ko ñu teg ci ay jamono benn jigéen alxamidiya ñëw jaar fa malik jaaloon e yow mi yàlla yónni man day njaaloo naa te mas naa sëy dañ maa war a rey nañ ko rey bañ a daa di jébbalul yàlla ak jébbalu loolee mbokk doon loo xam ne nii du la yéem la waaye fàttalikul keroog ba ismail alayhi salatu wasalaam bàyyam ñëw ci moom ne koy sama doom sama borom day nee na naa la rendi sama doom sama borom nee na naa la rendi mu ne ko bàyyi defal li la yàlla sant de loolu la wax day yaa abati fi almaatu umar sa tajrini insha allah min assabirin comme loolu may ndigul yàlla def ko dag ma fekk mu jébbalu ma gaa yi ndax boobu ismaila daa njaaloo woon laa ndax daa reyoon nit laa waaye ndigal la bu bawoo ci yàlla kon kon def ko loolu it muy wane ne képp ku mën a doon da ngay atte wala dañ lay atte xamal ne ndigal yi yàlla subhanahu wa taala digle non seulement dañ ko war a appliquer waaye buñ ko appliquer ba pare ñu nangu ko bañ caa am benn ñagg-ñagg xol daal di jébbalul yàlla ak jébbalu yàlla na yàlla saxal ko ci suñuy xol te saxal ko suñuy jëf mi ngi noonu Cheikh Ousmane ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما barakallahu fikum suñu borom jalla wa ala mu ne walaw anna katabna alayhim ay way naafiq yooyu day xanaa suma bindoon ci ñoom ay farataaloon ci ñoom an iqtulu anfusakum ne rey leen seen bakkan yi aw ixriju min diyaarikum wala génn leen seen dëkkuwaay yi ma faaluuhu illa qalilun minhum du ko def lu dul lu néew ci ñoom walaw annahum faalu ma yuazuuna bihi waaye ñoom day bu doon defoon nañu la nga xam ne dañ leen koy xuppe di leen ca waare la kaana xayran lahum lool day moo nekkoon yiw ñel leen wa ashadda tasbita te mooy doon gën a gën a gën a dëgër ci saxal leen wa idan la aataynaahu min ladunna te kon day doon nañ leen jox ci lu bawoo ci ñun yàlla ajran azima yool boo xam ne yool bu màgg lay doon wala hadaynahum siratan mustaqima te kon day doon nañ leen jubal yoon woo xam ne wu jub lay doon wa man yuti illaha wa rasul koo xam ne dafa topp yàlla topp yenenti yàlla fa ulaika ma allazina an'ama allahu alayhim ku mel noonu day dana ànd ak ña nga xam ne yàlla xéewal na ca yàlla xéewal na ca ñoom min annabiyin ñu bokk ca yenent ya wa siddiqin ak ña nga xam ne dañoo dëggu wa shuhada ak ña nga xam ne ñoo faatu ca yoonu yàlla wa wa salihin ak bépp julit bu baax wa xasuna ulaika rafiqa moo aka rafet ci ñooñu day ñoo xam ne ñu ñuy àndal lañu zalika alfadlu min allah lool nag ngëneel la bu bawoo ca yàlla wa kafa billahi alima doy na yàlla rek nag muy aji xam kan moo yeyoo ngëneel boobu yàlla nañ ci yàlla boole mbokk kon borom baa ngi wax ñi nga xam ni dañu leen ne kaay leen dem ci yenent bi mu àtte leen ci liy dox seen diggante ñu daal di bañ borom bi ne waaw kon ñii su ma leen waxoon dem leen ngeen rey seen bakkan yi ndax dañ ko def te loolu mbokk xam leen ni yàlla mas na koo nattoo bani israil te rek ba leen yonent yàlla Muusa bàyyee dem ca tuuru Sina benn saay-saay bu bon bu ñu wax Muusa Samiri wala boog Samiri moo gën a wóor bu ñu wax Samiri daa di leen di defaral benn nag en or waa bani israil commencé di ko jaamu ba Muusa ñëwee bokk na ba leen yàlla di jéggal daf leen wax ñi doon jaamu nag bi nañuy leen bàyyi ñu daal di reyante seen biir suñu borom yàlla subhanahu wa taala dogal waa bani israel nangu loolu ak li ñuy saay saay saay saay ñu nangu loolu yàlla indi ci ñoom benn lëndëm kenn xamul kenn ñu yor seeni jaasi di cawante ci biir lëndëm gi Muusa ak Haaruna di ñaan yàlla Moussa ak Haroun di ñaan yàlla baba yàlla subhanahu wa taala ne doy na bañ pare lu bari ci ñoom rey nañ leen loolu kon ndigal la bu yàlla subhanahu wa taala joxe woon waaye ñaareel bi tamit da ngay gis ne mbokkoo suñu borom won nañu lenn ci ay sahaaba ñoo xam ne nii daje nañu ak seeni noon te mooy sahabatul kiram keroog xare badr daanaka ñañ doon dajeel seeni mbokk rek lañu rey ci ñoom juróom-ñaar fukk bal keroog la abu ubayda amir ibn al jarrah rey baayu boppam rey baayu boppam gis ngeen dañuy wax ni abdurahman doomu abu bakar daa yéex a tuub ñu ne daa ñëwoon ci xare badr mu ne ko bàyyi day keroog badar jekku naa la de waaye damaa xam ne saa bàyyi nga rek moo tax reyuma la mu ne ko billahi su ma la jekk woon man kon danaa la rey ndax da ngeen a nekkoon ci diine caaxaan ca mooy kon ki nga xam ne yàlla subhanahu wa taala moo ko jox ndigal xoolatul bàyyi xoolatul doom donte ne uqtulu anfusakum bi duñ ko firee ak xaru bokk nañu xam ne xaru islam da ko xaraamal mu bokk ci bakkaar yi gën a bon ndax bakkaar bu ne mën nga ko def tuub ko saf xaru am déet ki xaru ni muy tuubee jeex na dégg nga c'est fini gis ngeen amma anfusukum boobu mooy fa sallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah bu ko yàlla di wax mooy nuyonte leen seen diggante su ma leen waxoo nit ne gàddaay leen dem bàyyi seen bien yépp te def ko ngir yàlla kon naafiq yi duñ ko def gis ngeen kon naafiq yi duñ ko def xanaa lu dul lu néew ci ñoom bokk na yonente bi alayhi salaam bi muy jàng aaye bi kenn ca ndawi ansaar ya nekkoon fa muy abdullah ibnu rawaha mu ne ñu néew te ñoom ñoo koy def bokk na ci abdullah ibnu rawaha kii de bu ko yàlla ne woon rayal kum mën a doon dana ko rey gis ngeen lu ko yàlla sant dana ko def na ko yonente bi waxe woon keroog atum juróom benneel ba ca mu'tata ba ñu dajeeg waa ruum te zayd ibnu alxaaris yor drapeau ba gannaaw ba mu daal di koy jël kii di jaafar ibnu abi talib ñu rey zayd rey jaafar abdullah ibnu rawaha jël drapeau bi gars yi na ko waaw tee ñoo seet lu ñu dawe mu ne leen héey yéen dañoo génn jihad fi sabilillah nañ jëm jihad buñ ñu reyu nit dañuy masa dee rek te la waxoon ya nafsi in lam taqtuli tamuti hey yow sama bakkan maa ngi lay xamal ni bis boo deewul ci jihad te da ngay masa dee rek loolee kon ci la attaqué ba ñu rey sahaba yi ak waa ruum ba yàlla dogal ñu rey ko te la sayfullah di khalid ibn walid doog a jël drapeau ba fexe ba génne armée islamique muccal leen te ngañ doon xeexal ëppoon nañu leen plus de trois fois gis ngeen ala kulli xaal suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne xanaa ñoom xamuñu ne buñ defoon liñ leen sant looloo gën ci ñoom e waay yow jullit xamal ni ndigalu yàlla soo ko jubee day dana metti ci yow lool dana ñàng ci yow lool waaye gëmmal def rek te rek yàlla léegi rek mu metti lool waaye gëmmal bàyyi rek place bu bi ngay liggéey dafa xaraam lii daaw ko def defal rek suñu borom nee na boo defee li yàlla santaane looloo gën ci yow moom la borom bi ne wa man yattaqi llaha yaj'al lahu makhraja heure boo ragalee yàlla yàlla may la génn waay wa yarzuquhu min haythu la yahtasib te it loolu moo gën moo leen di gën a dëgëral ñu ngi noonu def la nga xam ne muy ndigalu yàlla borom bi mu ne kon de danaa leen jox yool boo xam ne yool bu màgg la ci adduna ak alaxira amul lenn looy bàyyi ci yàlla tax lu dul yàlla wuutalal la lu ko gën te it heure boo deyee yàlla tabbala aljanna te dara gunta mag aljanna loo xam ne nii yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na bokk na ña fay gën a néew lu leen yàlla di wërsëgal ña nga xam ne seen ngóor ga ëpp na suñu àdduna bii ñuy dëkkee fukki yoon ñooñu ña fa gën a néew la ay cër ajran azima gannaaw bi danaa leen jubal siratan mustaqima te mbokk ndigalu yàlla ngi noonu yazidu llahu lazina ihtadaw huda heure bu yàlla indee ay ndigalam nga jëfe ko yàlla dolli la ak njub dolli la loo xam ne xamoo ko woon loolee gis ngeen moom la ñuy ñaan yàlla fukki yoon ak juróom-ñaar bés bu nekk ihdina sirat al mustaqim ay yàlla jubal ñu ci yoon wu jub te ma yoon wa mu wàcce woon ab yonentam sallallahu alayhi wa sallam borom boobu it daa di ne képp koo xam ne da ngaa topp ndigalu yàlla topp ndigalu yonent yàlla ñooñu day alaxira ñoo yonent yi ñoo bokk fu ñu dëkk ak siddiqina yi bokk na lu mu fassiru ne di nettali benn góorug caamin ci sahaaba yi day ñëw rek bu toogee ci yonent bi alayhi salaam di ko xool rek triste lool bis yonent bi waaw sëñ cam yow dama laa gis ngi triste rek te diine l'islam bokk du diine yi foo toll rek ñangal léeg-léeg da ngay ree waxtaan mi ngi noonu tabass boo ko fi waji aqiqa sadaqa mooy dajeeg sa mbokk jurit leeral sa kanam kanamam leer olu sarax la mu ne koy yëmu yàlla yénni dama la bëgg bëggeel goo xam ne danaa nekk ak yow nibbi sama kër danaa toog kër ga duma fa mën a toog il faut mu ñëw toog ñëw ci jàkk ji pour gis la te xam naa ne même bu dee góorgóorlu naa ba tabbi aljanna fa ngay nar a nekk ci àjjana dootuma la gisati loolu rek moo ma metti yonente bi alei salaam ne ko almaru ma aman ahabba koo bëgg moom ngay nekkal alaxira yowm alqiyama yàlla nañu yàlla bëggloo yonente bi ak sahabaam mu ne ko na suñu borom nag ni ñi nga xam ne dañoo topp yàlla topp yonente yàlla ñoom day ñoo nabi yiin yi ñoo ànd ñoo ñu gën ci li yàlla bind mooy annabi yiin nabi kenn du góorgóorlu bu nekk nabi nomination la yàlla koy neme ku ko neex wa siddiqin gannaaw ba mooy ñu dëgguñu bokk na kuy seen njiit abubakarin siddiq mooy jiite siddiqina yëpp yowmal qiyama ndax xeetu yonent bi moo gën ci xeet bi te moom moo gën ci xeet bi gannaaw yonent yàlla bi siddiqin mooy ñu dëgguñu wa shuhada ak ña nga xam ne dañoo dee fi sabilillah am nañu koy firee sax malaaka ya shahida allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika te malaaka yi dañu dugg biir aljanna wal malaikatu yadxuluna alayhi min kulli bab salaamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqba dar ñooñu la ñuy àndal wa salihin ak gaa yu baax ya as-salihin mooy ñi nga xam ne baax nañu seen digganteeg seen boroom baax nañu seen digganteeg seen i moroom lii mbokk mooy la nga xamee ni nii la ñu yàlla dig ca mooy gën jaara fecc ñu ñuy àndandool loolu moo tax ba ngalawaay yow ndawal julit sa xel bu mu nekk ca ñooy nekk Hollywood ñooy nekk Moscou ñooy nekk nangam ci seen lisku yi seen noos yi léegi mu jeex ngalawaay sa xol na nekk ci ëllëg ci si biir ma tabbi aljanna dëkk ak la nga xam ne mooy yonent yi tabbi aljanna yàlla yigéem a firdawsil aala loolee mbokk fa la bànneex yem fa la xéewal yem borom bi nag nee ñu lii ngëneel la bu bawoo ci yàlla ca mbokk képp ku dugg àjjana yàlla ngay sant yàlla ngay sant li xew ci ñu koy dégg gu dégg bëccëg ba doomu aadama attana taxaw naan yoomal qiyaama lu ma fa sëñ diw joxul bëgguma ko ah gaa yi yàggu leen dégg loolee ah sëñ Thiam déggoo benn waay bu doon wax naan àllaaxira yàlla lu mu am na jël yonent yàlla lu am jël soxla lu ma ko mën a sëñ diw lu ma mbokk loolu suñuy wax rek la zalika al fadlu min allah mbokk dugg ci lislaam ngeen ne lu yàlla la dee tabbi àjjana ngeen ne lu yàlla la yonent bi alayhi salaam sahabatul kiram daf leen gisoon ñuy rey seen bopp ndaw ñoo xam ne du ñu nelaw guddi ndaw ñoo xam ne dañuy dëkke koor yonent bi ne leen dal leen def leen nànk xam leen kenn ci yéen jëfam du ko tabbal aljanna ñu ne ko ah même yow mu ne même man lu dul yàlla dolli ci ay ngëneelam gaa yi yonent bi nee na paas am mutul yàlla koy dolli mu doog a dugg ah tey ay jeune bu ñu àndee jëm stade amitié paas bi ñaata la 5000 ki ci ëppale 2000 la yor waa ji yor un franc cent franc la sa waay yóbbaale ma waay bu ko man sama paas mutul lu ma la yóbbaale kon àjjanaa ngi noonu ku fa dugg ngëneelu yàlla la loolu tax boo koy ñaan ñaan ko yàlla ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة لي دا لانيو القرآن جانغال مبولم سنة يننتي بي لانيو جانغال اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل لي دا لانيو يننتي بي جانغال يالا يالا نيو مي أجنا مي نيو لو خامني ني دا نيو فاي جيغال تي واخ اكي جيف musal ñu ci sawara musal ñu ci lañu fa yóbbu ci waxe ki jëf zalika al fadlu min allah borom bi nag mu ne wa kafa billahi alima yàlla moo xam ngëneel boobu ana kan ci ay jaamam ñoo ko yeyoo ña ko yeyoo mooy ñi nga xam ne jaamu nañu ko bokkaaluñ ko ak dara yàlla na yàlla boole ñu ca ñooñu
يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما barakallahu fikum suñu borom jalla wa ala mu ne ya ayyuhal lazina amanu e yéen ñi nga xam ne dañuy na gëm xuzu xizrakum jël leen seen matuwaay fanfiru subatin dem leen ngeen doon euh, kenn ay mbo mbooloo yu ndaw aw yinfiru jamia wala yéen ñëpp jóg leen ngeen àndandoo jihaati wa inna minkum laman la yubatti an am na ci lenn ci yéen ñoo xam ne dañuy des des lu gannaaw fa in asabatkum musiba heure bu leen musiba dalee ci jihad ba qaala qad an'ama allahu alayya mu ne ah dëgg de yàlla man baaxe na ma islam akum ma'ahum shahida ci ñàkk ga ma nekk ànd ak ñoom di aji seede wala in asabakum fadlun min allah waaye bu leen dig dalee nag lii di ngëneel bu bawoo ci yàlla la yaqulanna xalsa naa wax ka an lam takum baynakum wa baynahu mawadda mel ne musul nekk seen diggante ak digganteem cofeel yaa laytani kuntu ma'ahum e waay ak ne kon ma ànd ak ñoom fa afuuza fawzan azima kon day dinaa texe texe gu mag fal yuqatil fi sabilillah na xeex waay ci yoonu yàlla allazina yashruuna alxayata addunya bil axira ña nga xam ne day dañuy jëndee dundug àdduna gi ca la nga xam ne mooy alaxira wa man yuqatil fi sabilillah koo xam ne yaa ngay xeex ci yoonu yàlla fa yuqtal aw yaglib ñu rey ko wala mu gañe ay noonam fa sawfa nutihi ajran azima ku mel noonu day xel si nañ koo jox fay goo xam ne fay gu màggalee doon mi ngi noonu bokk julit suñu borom mi ngi ñuy woo ci tur bi gën a màgg suñuy tur mooy ay yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm te itamit loolu mbokk mooy règle bi islam bu la neexee bul gëm yaa xam amma boo xisee benn julit nga nga la way da nga war a xam ne da nga war a tënku ci atay l'islam tey am na lu ñu tuddee armée dans tout tous les pays du monde am na lu ñu tuddee armée naa am xëy na bu la neexee ba ñu engagé wu dans l'armée mais une fois engagé dans l'armée xamal ne amatoo droit di bañ la nga xam ne ordre la yuy jóge ci kaw même bu dee yow comprendre loo ko yow daal jox nañ la ordre ordre bi da nga ko war a jëfe allahuma lu dul nag islam d'accordul ci loolu à cent pour cent parce que gis benn jugement bu amoon Nigéria benn capitaine capitaine tel yow yaa bombardé village tel mu ne wéy sous l'ordre du général nangam waaw pour moom ordre général nee na daa bombardé na bombardé waaye islam moom daf ñuy jàngal ni ñu doon jàng démb na am dañoo war a topp le capitaine le général le président ku ne dañ ko war a topp bu dee suñu kilifa la sauf mun nañu def leen li yàlla araamal sauf mun nañu bàyyi leen li yàlla santaane kon loolu ñu bàyyi ci xel bu baax yow amanu gëm ngeen yàlla topp leen yàlla amu leen droit di discuter lu jóge ci yàlla ak yonente yàlla ñu dolli ñaan suñu mbokk Aboubacar Samb mi ngi noonu ndeysaan buñ daan bëri woon na di poser ay question lu bëri nit ñi déree ah faatu na yaakaar naa léegi mu jóge deux ans yal na yàlla jéggal ko yërëm ko yàlla defoon na ko mu nekk un marin la woon nee na bis mas na ñëw seen benn capitaine benn mi ngi noonu woo seen benn benn soldat di ko jox ay ordre nee na bu ko waxee mu ne ko wuy moom capitaine mu wax mu ne ko wuy moom capitaine bi mu paree di dem mu ne ko mais kaay kaay kaay kaay mais je je je maa ngi digg naan wuy wuy wuy wuy est ce que am nga droit wax non mu ne ko non moom capitaine mu ne ko demal yaa ngi dégg waaw xoolal mu lii rek waay kii naan la wuy nga ne ko lu tax ngay wax wuy ndax tu n'as pas le droit de dire non yaa ngi dégg moo ko yow it julit xamal ne lu yàlla santaane tu n'as pas le droit de dire non sami'na ata'na gis ngeen ay yéen julit ñi xuzu xisrakum jël leen seeni matuwaay seen diggante ak yéeféer yi mbokk àdduna ñaari force ñoo fi nekk force bi jóg ngir dëgg taxaw ak force bi jóg ne dëgg day fay ci kaw suuf borom bi mu ne lawla dafqullahi nas ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard kon suuf doon na yàqu kon jël leen seen matukaay lu ngeen man ci waajul ko yéeféer bi ci matériel de guerre ci entraînement def leen ko gannaaw ba génn leen ngeen jottali kàddug yàlla bi subatin ngeen doon ay mbooloo yu ndaw aw jamia wala boog yonente bi joxe ordre ne nañ génn ñun ñëpp nañ génn comme lam joxe woon ordre keroog ba muy dem ghazwatu tabuk na ñëpp génn jamia waaye loolu yàlla wax xisrakum it mbokk loolu dafa nekk ci lu nekk mooy yow mi nga xam ne nii da ngaa nekk sa kër xuzu xisrakum su ngeen dee nelaw tëj leen seeni bunt mbokk ay ñoom ay erreur la nga nekk sa biir néeg yaa ngi nelaw ubbi say bunt ñaata ngeen ci dégg ñoo xam ne nii dañuy ñëw jaar ci seen balcon jël la ñu yoroon lépp dem seen yoon kon xuzu xisrakum heure boo xamee ne it yaa ngi nekk ci circulation bi di dawal ay waay xuzu xisrakum faites attention tey jii dañ naan la au moins quatre vingt pour cent accident yi am ci ci kaw suuf yépp la koy waral mooy imprudence waa ji dawal xuzu xisrakum jël leen seen matukaay mi ngi noonu ci lépp lu mën a doon xuzu xisrakum gannaaw ba suñu borom mu ne nag naafiq yi ñoom heure bu ñu wootee jihaad daañu fexe ba joxe ngant suñu déggee ne kat lii nga xam ne musiba dal na jurit ñi gañe nañ leen ci seen guerre ba ñu ne ah ñun de yàlla baaxee nañu ba ànd ñoog ñoom ba bokk ca ñay dee gis ngeen loolee da ngay gis ne jàngoon nañ ko jàng ci Ali Imran e yéen julit ñi bu leen mel ne yéefeet yi nga xam ne su seen mbokk yi génnee di jihaad ñu naan law atauna ma qutilu bu doon dañ ñoo topp waxoon nañ leen buñ dem buñ demuloon du buñ demuloon kenn du leen rey borom bi subhanahu wa taala nag ne ngal la waaye xam leen ne loolu musiba mënu koo passé erreur la te incha allah dañ ko jàng suba mooy dina ne yàlla subhanahu wa taala moom mooy dogal lu ko neex borom boobu it subhanahu wa taala ne bu dee ne nag dañoo gis ngëneel moo leen dal mooy yéen a gañe seeni noonu ñu ne ay waay waroon nañoo fekkee ngir lan ngir ngërëmal yàlla ga ca nekk laa ngir ngañaay ga nga xam ne nii ah yonent bi ak sahabaam gañe nañ ko ngiree ñun ñu bokk te ña nga xam ne dañuy gañe borom bi nag ne ay waay xam leen ne du noonu fal yuqatil fi sabilillah lazina yashruna alhayata addunya bil akhira na jóg jihad fi sabilillah mbokk jihad day nekk fi sabilillah te it nga la waay xam leen ne am na loo xam ne tubaab bi da koo bañ lool muy turu jihad loolu nag nañu xam ni mbokk ñun daa bokk ci suñuy diini ni ci aj bokki ni ci koor bokki amma jihad fi sabilillah mook aja yem mook koora yem waaw gaa yi weer wii ñu génn tey ku jàppoon ne yow moom ngay def weeru koor daal di koy woor weeru koor ñoo nga dog ndax da nga am ngërëmal yàlla la wallahi tey jii ku takkoon say bagage ne ah man day gaa yi maa ngi aji di dem Muzdalifa dem Arafat ndax sax aj aj baax na la wallahi mbokk jihaad fi sabilillahi noonu la mel dafa am ay shurut am ay ponk su ko defee jihaad fi sabilillah kaka mën a woote mooy amir boo xam ne daa jiite ab état jiite leen ci l'islam di soog ay boromi xam-xamam jàpp ne ñun kat am nañ kattanu dem la nga xam ne mooy jihaad kookee ku mel noonu képp ku ànd génn ci jihaad boobe loolu la ñuy wax jihaad fi sabilillah amma li xew tey un peu partout dans le monde ay ndaw yoo xam ne dañuy xëy rek daan na sëñ Thiam yaay suñu amir daa di ñëw yéefir yi nekk seen gannaaw jox leen ay arme ñu commencé dugg di rey ñan la ñu rey seen mbokku jullit groupuscule yi ngeen dégg tey ñu woo ci jihad ci un peu partout dans le monde ak seen tur yi ni mu safaanoo man ngaa waat ci yàlla ne bañ ko commencé à peu près ci cinquante ans yi ne nga mat na ko bu doon tene ne da ngaa xool ñu ne rey nañu un million de personnes waatal ne neuf cent mille yépp ay jurit lañu ndax gaa yi li mooy jihad jihad yàlla da ko indoon pour rey jurit ñi la wallahi kon loolu ñu xam ne mbokk ay xeex lañ yoo xam ne xeexi erreur la benn ndaw wuru caa jóg di ca dem amma bu jihad fi sabilillah amoon ñu xam ne jihad fi sabilillah loolee borom bi subhanahu wa taala nee na e yéen ñi nga xam ne alaxira la ci yàlla déggaate da ngeen koo jënd matam adduna mi da ngeen ne perte ci seen njaay moomu fexe leen jihad fi sabilillah te xam leen képp ku génn di jihad fi sabilillah te mbokk ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam sax taxul nga nekk fi sabilillah te mooy sa yéene day sell na yaa ngi jihad ngir kaddu yàlla jëm kaw li takuna kalimatullahi al-hulya hiya al-ulya noonu la ko yonent bi waxoon bañ ko laajee mais am na ñoo xam ne dañuy jihad mais dañuy am jàmbaar rek moo tax ñii dañuy jihad ngir dañoo rey seeni bàyyi wala seen nangam yonent bi wax leen kaddu gu gàtt jihad fi sabilillah mooy kii jihad ngir kaddu yàlla jëm kaw jeex na képp koy jihad ngir kaddu yàlla jëm kaw yàlla dogal ba mu demee ñu rey ko fa kooku day payam rot na ca yàlla ma ngay continuer ak dundam ca barzaq dund goo xam ne jàngoon nañ ko keroog ba ñuy jeexal Ali Imran bu dee ne moom it moo gañee suñu borom yàlla nee na dana ko jox pay gu rëy na doon fii ci àdduna la ak fële nga xam ne mooy ci àllaaxira mbokk kon mi ngi noonu yal na yàlla jagleel ñu payug àdduna ak payug àllaaxira boole ñu ci jaamam yu ko jébbalul mi ngi noonu xam naa kon ñu récupérer rek question yi nga xam ne jotuñu ko woon def démb incha allah bu dee am na wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain waaw kii mu ne moom day commencement weeru koor gi passé daa feebaroon bañ demee ba ci diggu koor ga nag yàlla def na mu wér ba yeggale koor ga ñu ne ko nag la nga jot a passé moom da nga koy génneel rek ay muddu loolu wàcc na la déedéet mbokk julit koo xam ne da nga feebar suñu borom yàlla nee na wa man kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin uxar ku mel noonu dafa war a fay bis ya nam ko faate ka nga xam ne mooy génne ay mudd mooy koo xam ne dañoo dem ba tere ko la nga xam ne mooy koor médecin yi xamal ko ni jabit bi la yàlla nattoo ulcère bi la yàlla nattoo wala lu mel noonu yow koor mënuloo ko ku mel noonu moom fu koor commencé lay commencé bés bu nekk mu génneel ko la nga xam ne mooy culab ceeb amma koo xam ne feebar dal na la ak lu mu garaaw garaaw te jàpp nga ne feebar bi ka dana wér su boobaa bisi koor ya da nga koy noté heure bu ko yàlla teggee nga daal di koy fay wallahu subhanahu wa taala alam naam ah wala mbokk yi kon koor gi ma leen jàpp kon amuñu am amuñu yeneen laaj waaw kon insha allah yàlla na yàlla defal ñu tawfiq fi dunia wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain